s'il ndax am nga yéene bi Pape FDS les Guelwaar dañu ko tabax taxawal ko du mus a nekk parti al toppe du mus a nekk parti yóbbaale dañu am yéene def FDS la première force politique du Sénégal ñi ngi ciy liggéey suba ak ngoon guddee ak bëccëg dans la massification dans la structuration du parti au niveau de la diaspora suñu jógee ci séminaire nationale bi je commence une tournée nationale et internationale donc mais affaire candidature beneen mbir la bis buñ bis buñ ci tolloo rek incha allah dis na ci wax. d' accord wax nga ma ni déggantewuloo ak Ousmane Sonko yàgg na xalifa Sall. c' est la même chose. ah bon Déthié Fall. de temps en temps mais très rarement. ok donc loolu depuis yàgg na depuis mois de mai nga wax. Ah mais bon su ma la woowee envoyé le message répondre loo bëgg damay wër di saraxu naan diw diw jëluma nangam ak nangam damaa yàgg dañoo am yeneen i yitte rek man ma doxi ma doxi yeneen i yitte rek ci boppam am nga man Youssou Ndour dafa wax wax bu am solo chaque jour dama koy dégg waaw dafay wax ni am na loo xam ne bu xewee dangay mel ni gaynde njaay mm-hmm. bu xiif baa mu mer mm-hmm. kenn du ko téye ba du fàddu waay mhm. sama woy wi nanga ko jël di ko déglu def ko ni sa woy mu jariñ la c'est l'homme qui a peur sinon y a rien mhm. man yàlla daf ma wan y a rien mhm. yàlla dong fi ne loolu dama ko dund étant élève dama ko dund dem université di jàngi dans des conditions extrêmement difficile de pauvreté yàlla wan ma ni moom donga fi ne ba aujourd'hui may jàngale université Cheikh Anta Diop nekk parti socialiste ñi ni fii ku fi génn dee ci parti bi ba tey jii bi may dem mairie Thiès di nekk candidat dañ ma ne woon da ngay xaru y compris samay mbokk journaliste yi ban journaliste moo pare woon ni mën na maa gañe Thiès. déedéet kenn gëm ko woon. waaw kon yàlla dong fi ne. yàlla moomu nag. yàlla moomu nag. yàlla moomu nag mais yàlla moomu nag moo war a tax na nga jàpp sa fukki loxoog yeewi askan wi. yeewi askan wi. waaw waaw déglu rek parce que comme kenn jàppul woon ni war nga ko mën gagné. nga gagné ko ci bannière yeewi askan wi war nga xam ni du yow. yeewi la yeewi ŋàññiwuma leen xasuma leen waxuma leen defuma leen benn group boo xamante ni ci ay bëgg-bëggam ci seen bakkan ndax li docteur kër Diop di wax arrangé wu leen ñoo ko écarté ba yëgalatuñ ko conférence des leaders mais man su ma yëgee réunion damay dem mais bu ma fa demee sama xalaat dama koy wax. donc man déggoo ma ma xas yeewi. d'accord convoqué nañ la réunion di nga dem. bon dégg na ay dëmbooj am na réunion bu mu ma wax euh, incha allah on verra bu mu sama temps permettre. d'accord ci beneen wàll bu bëgg ñu ñëw ci ci wàllu actualité bu bu taxaw dégg nga président de la république mu ne am na yéene donte tuddul sax ñi nga xam ni ñooy euh, ñoom la ñu wax ci wàllu amnistie bi tuddul seen tur mais am na lu mu junj ci amnistie xel yi jàpp ki nga xam ne mooy Karim wadd ak xalifa Ababacar Sall. Euh, ban gis-gis nga am ci yéene boobu nga xam ni président de la république am na ko ci ci wàllu amnistie. Pape gis nga pasar pasare alalu réew kenn waru ko encouragé ñi gérer alalu réew mi dañu am devoir def reddition des comptes. Mm-hmm. noo yor ay milliards doxal ko ci ni kenn du la ci laaj reddition des comptes transparence peuple bi dafa war a exigeant avec ñi nga xamante ni dañu yor alalu réew mi. moo tax euh, dañuy contre benn amnistie de faits boo xamante ni li xewoon ci Prodac kenn du ko lijjanti benn amnistie boo xamante li xewoon ci petro kenn du ko lijjanti benn amnistie boo xam li xewoon kudd ak euh, Omar ñebbe an kenn du ko kenn du ko kenn du ko lijjanti benn amnistie boo xamante ni niñ géré woon vivre yi nga xam moom lañ duggoon ci Covid bi mhm. kenn du ko kenn du ko lijjanti mhm. kon amnistie boobu baaxul baaxul réew wërta doxi ci coobare ndax xam nga ci coobare Macky Sall ah, mooy mën na nekk leneen lu dul loolu nga wax ah? xëy na ñoom ñi ngi xool yeneen yoon yu dul yu noonu nga ko xalaatee donc moo tax ma ne amnistie boobu day fee mais bu dee ci maintenant bu ci ñooñu ñu mën a jotaat seen ay droit maintenant euh, civil ak politique maintenant su Macky Sall jëfandikoo doole mhm. instrumentaliser justice dal ci xalifa Sall ak Karim Wade ñu nekk ay victimes aujourd'hui loolu war nañ ko réparer mais waruñu profité ci réparation boobu régler yeneen i problème moo tax jàpp naa ni am na yeneen i pexe yu ñu war a mën a jaar ci code électoral bi ak yeneen i leneen fexe ba muy Karim Wade muy xalifa Sall ñu revenir dans le dans le jeu politique. Mhm. donc loolu moo ci suma xalaat. donc loolu daal li nga ci ñaawlu wax nga ko mooy ñu bañ ci profité pour pour pour euh, pour nëbbaale leneen ak leneen quand même. bien sûr alors dañu dañu dem nag ci législative yi. ñu gis euh, ni nga xam ne noonu la législative yi demee euh, installation euh, président bi ak bureau bi lépp daanaka jur coow coow li gis nga ko ñëpp gis nañ ko bi nga toogee di ko xool yan yëg-yëg nga ci am ndax jàpp nga ni loolu nga doon xaar ci quatorzième législature bi wala déet ban gis-gis nga am ci loolu. Pape dara rien n'est nouveau sous le soleil assemblée yàgg naa yëngu. Mhm. <laughs> yeneen assemblée yi ci àdduna bi ñu ngi yëngu assemblée yàgg na am xeex yàgg na am xuloo yàgg na am coow. donc sénégalais yi nañu arrêté. donc je pense que. kon li nga fa gis amul dara loo ci ñaaw. non man aw ma ci aw ma fa gisuma fa lu garaaw lu jar scandalisé wu. loo soo fa nekkoon li ñoom Guy Marius Sagna. non je ne euh, def loolu ngay def. je ne suis pas Guy Marius Sagna je ne suis pas Barthélémy Dias je ne je ne dis pas que dama ni amu fa lu fa bees coowandoo bu yàgg na am assemblée li fa bees kay mooy jël gendarmerie. dugal leen biir assemblée nationale loolu moo fa bees wax leen ci loolu loolu moo garaaw je pense que ni loolu mooy dëgg. d'accord nga jàpp nga ni euh, gendarme yi bu ñu fa duguloon est-ce que élection boobu dina egg ba ñu mën a génn ci li nga xam ni moom mooy. gis nga Pape li ma wax ci yeew yi rek moom lay waxal nañu góorgóorlu suñu dëkk yi suñu kuréel yi di dox ci ay charte di bañ a dox ci bëgg-bëgg doomu aadama. Mm-hmm. bëgg-bëgg Macky Sall moo écarté Khalifa Sall. ak Karim Wade bëgg-bëggam aussi ci la leen bëgg indiwaade ci làng gi. d'accord man dama gëm ay charte mhm. suñ ko deful suñu dëkk yëpp di dal ay Mali li dal ay Côte d'Ivoire ak li dal Tchad li dal Libye yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal mais mhm. tax nañu war a am ay banqaas yu dëgër mais loolu si nañ ko jàngale ci suñu biir kuréel yi suñu mhm. biir parti politique yi suñu biir coalition yi nit waroo nekk ci ab kuréel wala ci jox la am réew ngay doxee sa bëgg-bëgg ay charte ay principe nañuy tënk alors euh, yaa ngi dégg ñi ngi tudd jamono ji lu jëm ci euh, convoqué ki nga xam ni mooy euh, Ousmane Sonko ci mbiru Adji Sarr déglu ko ci dégg nga loolu ndax yaa ngi wéy ba tey di ko soutenir ci jafe-jafe yooyu ak taxawaay bi nga xam ne amoon nga ko ci. Pape man du ma di lekk lu ma waxoon démb ci laa nekkaat tey. Mhm. Ousmane Sonko na ma ko jàppale woon mois de mars ci laa ci ëpp taxawaay. Mhm. je suis man lu ma nit def mën naa ko baal ndax maam Cheikh Ahmad Bamba mooy suma référence mhm. aw ma problème personnel ak ñoom j'ai des différends politiques que j'assume j'ai des différents politiques ak ñoom que j'assume ñeme ko lool mais bu loolu weesoo suñ ko bëggee jaay doole eh, donc ni ma ko défendre woon noonu laa koy défendre defuma ko pour Ousmane Sonko xalifa Sall bi mu amee ay jafe-jafe dama ko défendre Karim Wade bi mu amee